yonente nee na màndargam naa fekk ñett la koo xam ne su waxtaanee fenn boole ci la ca bokkut wala su joxee rendez-vous da koy faussé suñ ko wóoloo mu wor buñ ko joxee secret mu génnee ka bu fekkee am na luñ ko wóolu dana fexe ba wor kooku mooy naa fekk